dal leen ak jàmm ci xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti doomi àddama ñoo dolleeku ci lim gi ko fi jot am lu toll ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak tey am na fukk ak ñaar yu si ñàkkat seen bakkan dose yu njëkk vaccin anti covid bi daal dinay yegg si suñu réew mi di Sénégal démb ci àllarba gi fukki fan ak juróom-ñaar si weeru février si ngoon la njiitu réew mi Macky ci aéroport 2019 bi. mbirum supposé viol buy wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, am na rek euh, li nga xamante ne ni Adji daal na ko si xamle gulleet di ay xibaar yu doy waar lool yi nga xamante ne ni xam na ko si njiital Pastef bii di Ousmane Sonko. borom salon Sweet Beauté bi nga xamante ni moo di Ndeye Khady daal dinay dikkaat ci li nga xamante ni may wutale kii di employé bi di Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom nag daal dinay xam ne sax lu waraloon mu dàkkoon kii di aji Sarr ci ba mu nekkee ci salon de massage am boobee ñu tuumal ko ni moo orchestré woon complot Ousmane Sonko yaa xam bay daal dina si indi ay leeral si yooyu lee tuuma ñu gàcc si ndoddam laata muy xamle leneen lu doy waar ci Ousmane Sonko. enquêteurs yi daal di nañuy tegaat loxo keneen ci wàllum euh, menace de mort yi nga xamante ne ni nee nañ dañ koy yónnee ay euh, kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi démb ci àllarba gi ay élément wu dikk daal di nañuy euh, teg loxo ki nga xamante ne ni ab agent la ca Sonatel kan la bu ñuy yaatal la leen koy daal di xamala gulleeta famille yu Adji Sarr di réagir ci luy wutali seen doom jeeka njiital Pastef bi ñoom nag am na lu ñu xamle rek ci kii di Adji Sarr waaye itam daal di nañuy dal borom salon de massage boobee ñu joxoñ rek baaraamu tuuma ci li la kàddu yu Moustapha Diakhaté yëkkati jëmale ko ci ay waajuru yonent bu tedd bi jur na ay réaction yu bëri kii di Serigne Maodo Sy dabaax am na la mu ca xamle ak tamit ñi nga xamante ne ni ñoo di imaam yi waaye moom it di Moustapha Diakhaté yëkkati wat na ay kàddu njéggal Moustapha Mbacke Lo ñu gën koo xam ci turu Junior Lo di doomu Moustapha Cissé Lo daal dina yàddu ci mbir mi wutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom nag euh, mbubu avocat rek la solal kii di njiital Pastef bi la mu xamle yëpp bu ñuy yaatal la ñu leen koy xamal Mamadou Sarr di waajur bu góor homme d'affaires bii di Tahirou Sarr daal dina génn àdduna ni kii démb ci àllarba gi xibaar bu nakari bi nag tasaaroo na ci anam bu gaaw lool ci ña nga xamante ni ñoo di ay xame di aara nekk borom këru sœur Queen Biz bii di Mame Sita gannaaw ba ñu amee bébé loolee yëpp bu yemee daañu ci toftal xibaaru tàggat yaram li mu ci gën a fës yaatal wi ginnaaw bàkk bi lay doon mu nga ko nuyu nañ leen di leen dalal jàmm ci xibaar yi mbas mi la koy dooree comme ni ko tàmm di defee bu ñu sukkandikoo ci ministère ba a wàllum wér gu yaram bi ñaar fukk ak juróom-ñett la ñu testé ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo fukk ak juróom-benn yi dañ leen wàll ñaar téeméer ak ñaar di ay cas communautaire ñaar téeméer yi doomi àddama ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett wax nañu tey juróom fukk ak juróom-ñaar sonn nañu ba ñu nga sowetage am na fukk ak ñaar yu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganise ba jamono ji may waxeeg yéen fanweeri junney doomi aadama ak ñaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ko fi jot a amee ci ñoom ñoo ñee ñaar fukki junney doomi aadama ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak benn ñàkk nañu ci seen bakkan fi mu ne nii ñeenti junney doomi aadama ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoo amee coronavirus bi ci suñu réew mi di Sénégal ñu leen ci traité démb ci àllarba gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci ngoon la njiitu réew mi Macky Sall dem aéroport international Blaise Diagne bu Diass ngir jël ay dose vaccin anti Covid 19 yu njëkk yi di ab loowu 200 000 dose bu ñu jëndee Sinopharm di ab laboratoire chinois ci njëgu 2,2 milliards ci suñuy koppar si conseil des ministre ya doon jiite sax démb ci suba Macky Sall daal dina insister ci transparence ak rigueur bi si critères yi ñi nga xamante ne ni ñoom lañu ñu tànn di ñuy yëngu ci wàllum santé gi mag ñi ak tamit les personnes vulnérables dina bu ñu dënk wàllum wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ak ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur di Aïssata Tall Sall ñoo ngi fa woon supposé viol bu Adji Sarr di tuumal Ousmane Sonko Adji nee na rek mooy acte sexuel bu mu njëkk a def maanaam si Ousmane Sonko la xamee góor moom moomee nag masseuse boobee ay atam toll si ñaar fukk nee na benn bés Sonko dafa ñëw si seen cabinet de massage bi ngir defar yaramam si noonee par hasard mu ubbi gis ne président Ousmane sonk la mu dal di dem directement ci cabine bi laata mu koy euh, rek euh, laaj yan type de soin ngeen am mu tontu ko ne ko am nañu ay soins tonifiants violence sportive ak 4 mai ak gommage du corps Sonko dal di tànn tonifiant bi ndax nee na dafa sonn lool bés boobee si noonee aji mu defal ko massage bi yëpp ba mu pare mu dal di koy ne massage bi jeex na waaye Sonko nee na daa wéyandi rek tëdd mu daal di ko koy bamtuwaatal ne ko tonton massage bi pare na mu ne ko ndax xàmmee nga ma aji mu daal di koy tontu ne déedéet tegal ko si soxlawuma xam la Sonko tontuwaat ko ne ko xam naa ni xàmmee nga ma te bépp jigéen bëgg na nekk tey sa place Seras laata mu koy naan ndax bëggul sax ku koy soutenir di koy jox xaalis mu tontuwaat ko ne ko déedéet su ma ko bëggee xam naa fu ma koy defee ba tey rek àjjine si noonee nag la ko Sonko dal di tëkkuwaatee ni dina ko ñàkkloo liggéeyam bi te rek tey luy tax mu bañ a ñàkk liggéeyam mooy mu satisfaire ko ndaxte client bu am solo la ci boîte bi te rek bu ko patronam yëgee dina ko dàkk ba tey aji sax ne nag mu ñàkk pexe dal di summeeku tëdd si table ba mu ko doon defalee massage bi la laata muy leeral ni boobu mooy gulle te muy tëdd góor wa ila si lay njëkk a sëy moomee nee na sax Sonko violé na ko ay yooni yoon bokk si ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier fanweeri fan ak benn ci weeru décembre benn fan ci weeru janvier ak ñaari fan ci weeru février ba ñu ko laajee ndax Sonko daa yor sa numéro téléphone aji nee na waaw Sonko yor na numéro ma waaye nag nee na mësu ko woo téléphone donte sax xamle woon na ci plaintam bi ne Sonko yónnee ko ab bataaxal di jëfandikoo euh, ba ñu ko laajee ndax mi ngeek message bi ba tey daa xam xamle rek ni da ko supprimer guléet famille yu Adji Sarr di réagir ci luy wutale seen doom jeek njiital Pastef bii di Ousmane Sonko maamam bu ko yar nag mbir mi daf koo métti lool ndax déggatul euh, rawatina gis kii di sëtam bi moom nag Aïssatou Ndong nee na yar bu baax la yar sëtam bi di Adji ba ko ko yaayam joxee si noonu mu ne lii nag ba mu xewee ba léegi gëmmul bët nelaw ndax rek li nga xamante ne ni nakkari na ko lool waaye ba Adji demee nee na ba léegi rek xamatul lu muy liggéey ndaxte géej na koo dégg ba mu noppee musaa Sarr di takku waajur bu góoru Adji saar moo ko feelu dal di xamle ne doom bi nga xam ne nii rek euh, bëgg nga koo gis te mënoo ko gis bëgg koo dégg te mënoo ko dégg problème la euh, si noonu mu ne bu ñu demee nag euh, ba ka nga xamante ne ni moo ko mag mën koo jur ñu wax si moom loo xamante ne ni rafetul dafa ñaaw lool ci déggin waaye nag comme affaire bi dem na ci yoon dañuy bàyyi rek mu def liggéeyam ko yoroon Adji Sarr jiir nda ba mu doon a jàngee moom it yëkkati na ay kàddu ci mbir mi xamle ni wi naan euh, borom salon bi moo leen tooñ moom mu jël xale bu ndaw euh, dal di koy euh, liggéeyloo leneen la nga xamante ne ni liggéey boo xam ne mag moo ko war a liggéey la laata magu papay aji di Abdou Khadir Sarr di si yokk ni aji bu dee yàkku na rek borom salon boobee moo ko yàq ndax waroon na koo jàppe ni doomam te comme Sonko firndeel na ni day dem foofee kon lu ñu war a weddi bëreetul si noonee nag la ne aji sob na lool waaye nag xamee wuñ ko wax lu dul dëgg ba nag lu rëy lu mu xamlewaat ci lu koy wutaleeg Ousmane Sonko ci kanamu enquêteur yu nekk ca section de recherche moom nag nee na Sonko mu ko obligé mu sëy ak moom mësula protégé wu si buy tëdd ak moom waaye da ko doon proposé saa su ne mu jënd pilule aji nag daal dinay nangu tamit ne moom moo wax ñaareelu masseuse bi mu génn ndaxte nee na Sonko daf koo defoon signe ngir rek kookee génn ñu wét fa ñoom ñaara Ndeye Khady Ndiaye di propriétaire Sweet Beauté daal dina yëkkatiwaat ay kàddu si li jur coow si suñu réew mi moom nag nee na Adji Sarr si ay employé am la bokk di koy liggéeyal depuis weeru novembre atum 2020 waaye fukki fan ak juróom la liggéeyoon ne ko day changé laata muy ñëwaat ñaan ko ngir mu jëlaat ko si noonee la leeral ni dafa dakkoon Adji ndaxte client yëpp moom la ñu doon tànn ngir mu defal leen massage tax rek mu soupçonné ni da see raxal leneen lu si bokk la Ndeye Khady nee na xam na bu baax ak kii di Sonko ndax lu ëpp at mi ngi fréquenté te salon wam bi di def massage tonifiant euh, si njëgu 20 000 francs CFA moom nag nee na euh, si ndoxtel li ku ñuy wax Fatou nga xamante ne ni dafa bàyyi moo doon massé Sonko euh, keneen ku ñuy wax Fatou tamit wutu ko waaye jamono ji depuis ba aji ñëwee di koy massé daa seetlu ne saa su Sonko ñëwee rek aji mooy tijji bunt bi jubbal ak moom directement ci cabine de massage bi altine benn fan ci weeru février nag nee na moo capture bataaxal bu ko Sonko yónnee ne mi ngi def si massage ne nee yónnee ko aji boobule capture ndax daa fekkoon mu nekk hôpital Fann bu ñu ko hospitalisé depuis fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ñu tuumal ko ni moo orchestré complot wu Ousmane Sonko bi xam mbay daal dinay indi ay leeral ci yooyu lee tuuma ñu gàcce ci dama moom nag daal dinay waat ni xamul kii di aji Sarr te mësu koo gis xamul it ku ko xam te intéressé wu ko ba loolu weesoo nag la yaa xam yokk ci ay kàddoom ni Adji Sarr ku di dignité la di xale ba tax na rek lu ñu koy attaqué ak lu ñu koy wax c'est bul ndax Adji jigéen la te góor lu mu war a bàkkoo mooy xeex ak sa moroomu góor wala attaqué sa moroomu góor ba loolu weesoo la ne Sonko tamit citoyen la ba tax na fii ba justice sénégalaise bi di établir wala déet lii di culpabilité kii di Ousmane Sonko moom présumé rek lay wéy di doon. gannaaw sorti Adji Sarr yu graaw yu muy tuumal Ousmane Sonko Yakham Mbaye daal dinay yokk xar mi karaw moom nag euh, directeur quotidien national bii di Le Soleil nee na njiital Pastef bi def na ay njombe ci weeru décembre atum 2019 bi te fuite nañu ko te njombe yooyee nga xamante ne nii wuute nag la muy wone euh, saa su ne si kanamu ay militant wam wala si média yi heure bu génnee rek deram dina yàqu mu xamle ko moom mooy Yakham Mbaye Tahibou Ndiaye daal dinay yóbbu Cheikh ba taskatu xabaar bi traité mentoru Ousmane Sonko ci Yerim Post ne rek ah, moom mooy wutal avocat ak i ay sëriñ kii di Ousmane Sonko si lu koy wutaleeg Adji Sarr article boobee Cheikh Yerim Seck di tuumale Tayibou Ndiaye nag ah, mi ngi ko ah, juróom-ñaari fan ci weeru février si noonu la bu Ndiaye defee citation directe ngir diffamation ci wàllum viol buy wutale Sonko ak kii di Adji Sarr bu ko defee Cheikh Yerim Seck dina janoog àttekat bi si kàddoom yooyee nga xamante ni si lay tuumal. kii di Tahibou Ndiaye ngir indi si ay euh, la avocat waaye itam porte parole lu bi di Pastef di maître Abdoulaye Tall moo taxaw ngir plaider Ousmane Sonko mu ñu limaale ci mbirum viol ak menace de mort avocat bi nag neen wóor na ko ni tuuma yi yëpp ñu teg ci du kii di Ousmane Sonko dara amu ca ci noonu la xam le ni procédure bi ñuy amal contre Sonko du mujj fenn te leer na ko ni euh, Sonko dina euh, rek génn ci mbir mi ak li nga xamante ne ni moo di ndam. autorité yi jël nañu o sérieux lu militant Pastef yi di tëkku ne dinañu yëngal dëkk bi si bu ñu dindiwee malaanu kiirlaayu kii di Ousmane Sonko euh, bu ñu sukkandikoo ci suñuy source autorité préfectorale yu Pikine daal dinañuy yónnee bataaxal euh, ci commissariat d'arrondissement yi yëpp ak brigade gendarmerie yi euh, ngir ñu jël seeni ay matukaay waa jël bépp ñaxtu bu ñu sukkandikoo ci yenn source yi ay militant wu Pastef ñoo ngi daje ngir amal benn plan de riposte autorité préfectorale yu yi nag si ab correspondant ordonnance bu ñu bind takk der yi daal dinañu si euh, xam le ni ay euh, patriote Pastef dinañu jéem am carburant bu doy ngir euh, waajalaat song ñi di takk der yi te tamit dakkal nañu réunion yu ñu doon amal WhatsApp dal di jublu Telegram nga xamante ne ni dinañu jëfandikoo ay moto Jakarta cak-cak ngir amal jàmmaarloo ci bërëb yu bëri nga xam ne bokk na si Kër Massar Pikine ak cité amoo yi di 4 5 ak 6 ngir nag wone seen détermination jot nañu dakk la ñoom takk der yi bépp benn conférence de presse bu militant Ousmane Sonko yu nekk Pikine doon amal dal di teggoon sax loxo coordonnateur départemental ba di ali wu Bey laata ñu koy libéré eh, permanence su Pastef yi tamit ñoo ngi koy surveiller jamono ji ak tamit jaaykatu pëne yi saa su ne xibaar bu bees am ci mbirum Sweet Beauté police buy wër jamono ji ñuy saaga ak ñuy menacer de mort autorité yi ñoo ngi dajale ndànk-ndànk luy firndeel ni ñoom ñooñee ñoo def la leen di toppee ci cadre boobee sax la ñu tegee woon loxo altine ba leen ñu génn Patricia Mariam Ngandul di soxna ba administrateur Pastef bi fekk rek mu doon liggéeyi moom nag si téléphone am la doon yónneewee bataaxal benn ministre d'État ak benn autorité ci réew mi di leen siy menacer de gan gannaaw moom ak coordonnateur Pastef bi di Abbas Fall daal di nañuy teg loxo ñetteelu nit ci bile mbir di TG nekk jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar lu ñu leen di toppee nag graaw na lool bokk na ci sax atteinte à la sûreté de l'État ndaxte nee nañu ñoom ñooñee dem nañu sax bay tëkku njiitu réew mi mag Macky Sall ci boppam ci ba muy jànnoog enquêteurs yi nag soxna Biram Souleye Diop bi da na xamal ni dafa yónni woon benn stagiaire ngir mu jëndal ko ab puce bu muy def ci turam stage stagiaire bi nag ba koo teew loo xamal na ne puce boobee euh, moom moomee di Patricia la ko jox loxoog loxo ci kanamu ay témoin administrateur généralu pastef bii di Birame Souleye Diop police mi ngi koy di jamono ji eh, may wax ak yéen moom moomee nag dañu ko convoqué ngir lu ñeel enquête bi ci arrestation soxnaam si di Patricia Mariam Gandoula eh, di responsable commercial ci benn société moom nag eh, mi ngi ba tey ci ay loxo waa division des investigations criminelles waaye daa mel ni rek borom këram gi daa am fa mu làkku ndax boobu ba léegi nee nañ rek kenn tegu ko gët ñenn ñi sax naan dafa daw administrateur général Pastef bii di biram Birame Souleye Diop daal dinay réagir gannaaw ba ñu ko tuumalee ni dafa daw euh, tayle soxnaam waa dikk moom nag nee na ba mu ubbee téléphone am la gis euh, ñu ne dafa daw si noonee mu ne lu muy jot ci appel moo bëri taxoon mu fay téléphone am ngir noppal waaye itam ngir lijjanti yenn mbir yu urgent yi euh, ba loolu weesoo la ne rumeur yi yëpp nag ci moom dara amu ci rax si dolli soxnaam xamul lenn ci wàllum politique te moom borom këram muy politique mësula saaga te it du ko mës a def muy naan nag ngi këram di di convocation waaye it eh, nee na dina demander seen avocat yi ngir ñu déposer plainte jëmali ko si ñuy tuumaal soxnaam si. enquêteurs yi daal nañuy teg loxo keneen ci wàllu menace de mort yi démb nak ci àllarba gi ay élément wu dikk daal dinañuy teg loxo Bawar ja mu nekk en service ca Sonatel bu Médina moom nag si sutura lañu ñu ko jëlijee daal di koy téye gannaaw ba ñu ko soupçonné ni moo joxe numéro autorité étatique yu jot ay appel ak ay message yu ñu jagleel directement njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo ci libération li ni mel moo tax ñu interpellé waat Fatima Meng bu ci àllarba gi mel ni nag daa am ay lien euh, ci digganteem ak euh, agent Sonatel bi euh, Fatima moom moomee ñu fàttali leen ne moom mooy assistante kii di président Ousmane Sonko. ma junj leen ko ci bopp xibaar yi Moustapha Mbacké Lo ñu gën koo xam ci turu Junior Lo di doomu Moustapha Cissé Lo daal di ne bu ba avocat député bi di Ousmane Sonko ci wàllum viol bu ñu koy tuumaal moom nag daa jàpp ni lii yëpp ay pexe yu ñu lal la jëmale ci njiital Pastef bi si noonee la ne Sonko mooy seen yaakaar ki ku yi te wax na xam ne régime bi duñu ko jox benn chance si fii ak 2024 waaye nag du weet ci xeex bi ndax ndaxte ndaw yaa ngi ci gannaawam ba loolu weesoo la doomu bi dal di xamle sax ni ay ministre ak i ay DG euh, seen bureau yi la ñu soppi ay auberge laata muy naan pare na nag ngir dem kaso ak kii di Sonko. ñu janook taskatu xabaar yi démb ci mbirum Sonko ak Adji Sarr Abdou Karim Gueye xurum xàkk daal dinay xam le ni benn violeur moo fi am bu leer ñëpp gis ko muy viole di Macky Sall ndax rek violé na constitution yi violé loi yi violé lépp ba tax na moom la gis muy benn violeur bu mu ñemewaat ni euh, kii ni violeur la ba loolu nag weesoo la ne jóg nag jot na ndax sénégalais yi waruñoo seetaan Macky Sall nekk fii ne buur ne rek moo ñu moom di def lu ko neex si Guy Ndiaye lu mu doy waar doy waar moo tane kii di Antoine Félix Diome mu humilier police ba mu noppee Assane Diouf moo ko feelu ne nag caaxaan jeex na xare moo ci des te fu mu toll nii buur la ñuy jëflanteel si noonee mu ne États-Unis nag la nekkoon di seen lu bëri tax rek mu doon yëkkati ay kaddu di wax lu tegginewul ndax daa gis ña nga xamante ne ni amuñu teggin si ñun ndax rek bu ne woon eh, kii di Abdou Diouf moo fi nekkoon wala Senghor wala Papa tey naan nag mënula sekk ak Macky Sall lu dul xare ndax mënu koo may dara te tamit nee na fu aji dëkk ñëpp xam nañu ko heure bi waroon na fekk caméra yeeg yëpp dem fa daal di tamit foofee ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz gannaaw ba mu yëkkatee ay du moom Moustapha Diakhaté ne kat moo xam ay waajuru yónnent bi teg si ne yoonam nekkul si ndeyam ak baayam rax si dolli mës naa dégg benn nit euh, naan rek yónnent bi moo ñu gën ndey ak baay euh, mu xamal ko la gën jaxate ay waajuram ñoo gën waajuru yenant bi li ni mel nag jul na ay réaction yu bëri lool ligue des imams et prédicateurs du Sénégal nag daal dinañuy recadrer Moustapha Diakhaté gannaaw ba ñu xam leen ni anam bu mu rek aborder sujet boobee day firndeel ni l'islam ñoru ko waaye itam joxul cër kii di yonent bu tedd bi gannaaw réaction yu si juddu yëpp nag Moustapha Diakhaté daal dinay rek mujjee fësal ab bataaxal di jéggalu askan wi yëpp ne rek nangu na ni moom moomee def na erreur te rek dootu ko yi Sëriñ Maodo da Dabakh daal dinay àddu moom it ci kaddu yu Moustapha Diakhaté yëkkati jëmale ko ci ay waajuru yónnent bi Sëriñ Maodo Sy baax nag ab audio la def di si xamle ni yónnent bi yàlla da koo yónni si nit ak jinne te kàddu yu Moustapha Diakhaté yëkkati euh, jëmale si moom yëkkati na xolu képp ku ko sopp xam cër bu ko yàlla def te moom Seydina Mohamed yàlla da ko won ni yaak euh, sa mbokk yu la fi jiitu yéen a bokk yëpp donte sax yaay seen sang ci Daouda ne nag euh, njuumte bu rëy euh, la kii di mustafa Diakhaté def ci kàddu ya mu yëkkati laata muy dikkat ci histoire yonent bu tedd bi leneen Mamadou Sarr di waajur bu góoru homme d'affaires bi di Tahirou Sarr di dinay génn àdduna ni ki démb ci àllarba gi fii si Ndakaaru gannaaw ba ko feebar bi yàgg tëralee woon mu doon nag ku ñu ràññee loola xibaar bu nakari bi tasaaroo na ci anam bu gaaw lool ci ay milieu yu bëri ak tamit ci këru diine yi nga xamante ne ni jeune milliardaire bi dafa am ay xarit yu bëri loola équipe Dakar Buzz yëpp nag ñu ngi koy jaal ci sama kàddu Tahirou Sarr famille bi yëpp gannaaw ba mu dimbalee doomam bu jigéen bi di Ndaté jaane mu am uh, fukki at ak juróom-ñett mu wasin ci biir néegam Ami Collé Niang daa jël bébé ba rek di sëtam daa di koy jébbal kii di Mamady Balde mu ëmbal doomam ji uh, si noonee Mamady dal di jël bébé boobee suul ko ca biir kër ga ñoom nag uh, li ni mel tax na rek ba ñu leen doon atte ni kii démb ca chambre criminelle bu Dakar juróomi at ba réclusion criminelle nag la ñu teg ci ndoddu Ndaté Diané ak waajuram di Ami Collé far wi nag di. yi Mamadi ñaari at la ñu teg ci ndoddam ngir lu mu suul bébé buy doog juddu sans autorisation ñaari fan ci weeru mars la ñuy àdduwaat ci li ni mel xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci rapport bii di aar famille yu rapport ak lu brique nag paradise daal dina ñuy euh, yokk gannaaw ba soxna aar waaye itam sœur queen bi sa bii di Mame Sita amee doom bu gër barki démb semaine bii di ñëw la ñu koy euh, tudd seen doom joojee tàggat yaram histoire bi waroon na àdduna ci ba Keita Baldé xamle woon ci benn interview ne dafa yónnee woon xaalis ay ouvrier yu amul fu ñu nekk ba taxoon ñuy lal ay carton ci mbedd yi solidarité boobee nag mu def tax na euh, chaîne bi di Bamos réalisé benn film documentaire bu ñuy wax Hermanos euh, di film bu ñu jagleel kii di Keita Baldé si geste bu rafet boobee mu dal di def euh, baski la koy tëjee ñu tekki ndombal tànkam gannaaw ab réunion comité de la fédération sénégalaise de basket ngir objectif non atteint ancien sélectionneur Lionu Sénégal yu mu ñàkkandooroon final afro basket à domicile bi contre Nigéria di Cheikh Sarr daal dinay amaat occasion de lancer wu ay itam euh, marqué ay empreinte am euh, ci basket continental bi euh, coach bi nag daal dinay engagé wu ak Amavibis yi gannaaw ba ñu ko fale sélectionneur Rwanda bu bees bi.